Yeah, Senegalese, Senegalese. The best Senegalese rapper alive, DRP. Stadium Ngalandou Diouf Rio City fu ngeen nekk fu ngeen mënti nekk lu ngeen di def bàyyi leen ko Dip moo woote stade Ngalandou Diouf tey 23 décembre 2021 donc ñu dugaleen ci coulisses yi leen ay artistes jëlee leen ay présentatrices donc la maa ngi seen euh, Ma Emota je pense que ñoom la ñuy njëkk dem interview la laaj leen seen xalaat ci concert ñu dugg ñëwaat. Relax. <laughs> waaw comme ni ma leen ko waxee ñu ngi fii si stade Ngalandou ñu ànd ak ma. ma oui. ak Mota. oui. <laughs> buñ ma piégé wul ah. <laughs> c'est vrai d'accord donc euh, ñu ngi fii si stade Ngalandou Diouf donc lan ngeen di wax ci concert wu Dip ñun euh, bi ñu ñëwee yàggul noonu mais maa ngi gis ambiance yi gars yi ngi ci biti di dugg nànk par nànk bientôt le show va commencer. bientôt donc euh, Mota lan ngay wax ci concert au début. ça fait plaisir d'avoir ce type d'événement dès la prise des fêtes c'est exceptionnel je vois que les enfants ils sont là ils veulent s'amuser c'est normal qu'ils viennent et aussi. Euh, la tête d'affiche qui est à Rufisque aujourd'hui déplacé loona ku nekk donc ku nekk de daf koy neex mu ñëw def concert ak moom diapisé ak moom en tout cas on peut dire que ça annonce bien la couleur des fêtes à Rufisque en fait d'accord tout à fait donc yéen tamit ñuy xaar seen événement le 31 décembre inchallah ouais, bu baax bi si si ah a xam donc on l'a fait pardon voilà. donc en 2019 nekkatul événement bu ñuy présenté gars yi xam nañ couleur bi ni muy demee gis nañ ni ko Rufisquois yi di xeexee di ko Rufisquois yi defee seen yëfu bopp gis nañ ni ko Rufisquois yi di xaaree malgré tout ce qui s'est passé à Rufisque xam nañ ne seeni doom ñoo organisé xam nañ ne loolu mooy fête de fin d'année à Rufisque moo tax ñuy kontaan à chaque fois lu mu dëgër dëgër dëgër serré serré serré ñu koy fayit pour mu am. léegi donc ba léegi ñu ngi ci coulisse yi donc ñu fekk fii euh, koo xamante ni kenn dootu ko présenté Rufisque muy Feno BV ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw ñu ngi bëgg ñu ngi bëgg waa Rufisque ñu ngi bëgg ñëpp. yaa ngi ci Rufisque Sénégal TV donc euh, concert Dip Doundou Guiss c'est le 23 décembre donc lan ngay wax ci hip hop Rufisque. waaw hip hop Rufisque mooy ni ma koy waxee chaque jur rek talent bu mu ngi fi lépp mu ngi fi mais public bu moo desee répondre quoi public bu moo desee moo desee jàppale ay artistes am quoi parce que tey ji boo xoolee tey dar yi fiy nekk yëpp dañuy wuti rapport bu ne town pour ñun ñun ñi nga ñun ñu def deuxième partie ba normal ñun artistes yi Rufisque rek mën nañ feesal fii. mais le 25 mu ngi ñëw c'est dans jours incha donc normalement boobu yaakaar naa public Rufisque xanaa mu ngi waaw waaw si yoon si yoon si Feno BV yaa ngi ci biir. non non Feno BV nekku fi nag franchement. pour le 25 dañ ne crème hip hop Rufisque waaw mais xam rek dafa am na mu demee gars yi jaaruñu fu ñu war a jaar aussi ah. boo def sa programme da ngay woo artiste bi wala nga woo ku ko jege nga ne ko kat bàyyi dama bëggoon nga ñëw play xam nga même boo fayul artiste bi sax moom dina ba dina bàyyi lu mu def ñëw parce que daf siy sentir boppam mais dañu jéggi saa rek def turu Fero BB si track man bu ma ko gisee après dama mer dama ne ñu dindi ko c'est pas normal. non mais mais c'est Rufisque en fait tey nii xam nga man tey man sañ naa jël sa tour def ko ci sama tracklist normalement su ma organisé concert mais boo ko gisee man dama jàpp nga war a ñëw en fait. dëgg it mais sama numéro di nga di nga ma ko di ko wut quoi woo wala nga woo sama manager wala ku ma jege nga ne ko saawaay dafa war a ñëw door yow waxal loolu kese saawaay du si teg baat parce que xam na ni tëngéej lay représenté mais boo gisee benn manque de respect loolu manque de respect la quoi qu'on se dise la vérité manque de respect la donc bon du ma rejeté kenn faute bi mais gisuma som boobu mais dinaa support quoi tàcciwu xam nga <laughs> mais di nga ñëw quand même jënd taxaw seetaan waaw mën naa waaw naa jënd tige ànd ak waaw ànd ak sama ful ñëw seetaan xam nga am naa ay artistes yoo xam ne samay gaan lañ bu ñuy dóor ma ma shout out leen ñëw jàpp ko waaw ñëw jàpp si mën na nekk parce que xam naa ne am di ful sa gaañ la donc buy play da nga war a ñëw seetaan foofu jokkul la <laughs> foofu jokkul la te ñun jokkul lañ dëkk donc dañuy support bu baax a baax a baax loolu méttiwul mettiwul waaw dañuy kon Feno BV le 25 décembre incha allah ñu ngi koy xaar. waaw danañ teew support incha allah. big up di xaar sa prestation. waaw waaw respect ah ñu ngi ñëw tasaare yow moom on se connaît. respect yaa ngi gën a ñëw. <laughs> fii ci concert bi ba léegi donc ci coulisses yi daje ak mat Matmé vidéo donc ñu bàyyi ko mu présenté wu. salaamaaleykum gars yi di leen bëggee di la big up yow mosoon nañ tase te tasewaat nañ voilà yaa ma gën a xam daal. aller retour waaw. double casquette laa doxee foofu casquette artiste bi laa fa duggee xam nga fii ma duggee fi en tant que présentateur. Rufisque Sénégal TV. donc une chaîne local de Rufisque donc. Euh, donc yeah merci beaucoup donc lépp loo xamante ni c'est hip hop donc je cherche à émission maa ngi def ben émission bu tudd 16 bar aussi. donc tey jii nii mat mi vidéo lan nga ñu mën a wax ci concert Euh, donc c'est un plaisir déjà pour man ma teew fii Rufisque c'est vrai que gëj naa fi nag waaw ay temps genre sama grand frère fii la dëkkoon quoi fi doon fréquenter et tout donc euh, gis naa ni Rufisque daal hip hop am na fi quoi parce que y a beaucoup de euh, de talent ici y a Nino MD gars je pense que gars yi commencé nañ ko xam ak beaucoup d'artistes xam nga donc c'est un plaisir pour ñun ñu ñëw lu événement bi accompagner suñu boy bi mu war a jouer quoi. for donc mis à part ça hip Sénégal lan nga ciy wax. ci ci ci décembre bi. waaw yëngu na daal en tout cas gaa gaa ngi génne moom gaa dafa mel ni ñoom chaque fois fin d'année bi la affaire di génn quoi y a beaucoup de sorties y a beaucoup de projets yu génn yu am qualité yu original yu nice donc euh, on encourage quoi gaa nañ gën a productif bu ñu xaar fin d'année quoi toute l'année moom gaa dañoo war a présent quoi man loolu laa mën a wax donc game bi ça se porte bien quoi macha allah gaa liggéey quoi. macha allah donc coulisses yi donc ñu daje fii ak doomu Tëngéej ko présenté ti Dukapi lañ koy goddamn music borom G Place kooku <laughs> Farish kii laa koy oowee man. yàlla ay Robert borom leeri kii moom borom baax la geen ginnaaw animation dara Isma nigga you know Rufisque Sénégal tamit xam nga Isma ting suñu affaire bopp la lu ñu bokk la ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk tëngeej comme ni ñu bokkee tëngeej ñun ñëpp ñoo war a bokkandoo lépp voilà quoi bëgg naa leen bu baax. bàyyi ko mu nuyoo. salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen siyaar voilà quoi di di bëggee ñëpp quoi ñi di seetaan interview bi voilà quoi. yaa ngi ci Rufisque Sénégal TV donc premièrement lan ngay wax ci Rufisque Sénégal TV. Ah, bon d' abord maa ngi nuyu gars di nuyu di nuyu képp kuy seetaan euh, Rufisque Sénégal TV voilà quoi di wax gars yi que ni aussi les projet ñu ngi ñëw projet yaa ngi arrivé voilà quoi. voilà de de gros projets avec Ace Music loolu kese laa am lu may wax ci gars yi d'ici fin d'année bi voilà quoi di jox gars yi rendez-vous aussi ci bientôt ci concert yi aussi. sama frère di sama père di sama frère xam ne nii dama dee takk jabar mu takkal ma ñaari or yi sama chef ndax su ma amul xolu robo tey ji di ma may chef léegi laa soog a xam du ma bind sama texte. bu bëri need you for life my baby wanna enjoy man ma wëy woo ma no pride lan moo tax ñu bëri no lan moo tax ñu bëri no Dépassé c'est le passé, pour le problème temps on avait passé Maintenant que tout a changé, j'ai tourné la page car tout m'empêche d'avancer idée bu gàtt laa la xam nga bëgg ma jugé ci sa digg sa ay xarit nga sawul ma nit yi man yoru ma woon xaalis te ñi ko yar sa xol mu sama gaay sama gaay lu bees tàq la yéen laa koy njëkk a may tay tay tay fii lu bis yéen ñëw lu bees tàq fii laa koy njëkk a may yéen ñëpp yéen a ko moom ana waa tàq ko seen loxo si kaw ay ana waa tàq ana waa lébu gi ana waa lébu gi yéen ñëw seen loxo si kaw ana waa tàngu ana waa sant yàlla ci nga mën a pee nga mën a polis la ñu mën a tee xel mu xel ni bañ a robe na nan ma génn ci lobe te kenn du ma tee e ko ñi nga tiru géer di karaw kala nga soy tu dem géer du karaw ka ñi gën a def baram leen ba baram nag sa fawu am teel teel ni ku feebar ci corona mu anka boo gisee kuy jooy ba ko laaj nag jot bi taas bëri yéen su daala bu ñàkk si rek daal seen mooy agressant soosu taxin eh, ci mbokku cafin ma e mota dana ñafe ni ko ngay teg sa bakkan eh. comme ndax lay parti bam dee jàpp ma gom ñoo ngi xenge ate wootee jàmm toog li nga def rek passé tënk Rio mooy ma loolu eh, Rio what's up dégguma a dégguma dara Rio what's up xam nga lu ma bëgg ah yëkkati leen seen baaraam bi si digg bi ngeen saaga ma ñëpp ma ñëpp saaga leen ma xam naa li saaga leen ko dégguma saaga yi. ah waaw. Ah. waxoon nañu jéeg mi taxul ñu daanu. romb na police sa baalis fa jàpp. taxul nga jàpp. bandi bi ba toujours nga xool ma ne ma may sa baax ah saa yi saa sax ma saaga ñëpp. si bi sànni sa dëkk boobu ok fenn bébé est-ce que dina sax ba est-ce que soo yi bëgg dina sax toog a xaar bu ma dee bu ma dangeen ba nekk soxor di joxoon salax ba di alalu góor a góor du la leen dara ka joxoon di puuta million si gaa sama disque tuuru bu mel benn soo ma gisee disque toog sama couleur nekk saa yi or si sama dollar taxul ñor or dem bu juddoo ne sax a coob maamu sera ko rek ki ci toog te seen ñàkk si ne tëju

yéen bu ñu def la show damay indi rétro xam naa rétro la gars yi bëgg damay indi rétro indi lu bees waaw waaw damay indi rétro indi lu bees yeah are you ready? I DJ turn it up it fa ñoos leen ci bil bi moom la tuutoo de def saa yu fa dugg si weer ñëpp signé ne def saa yu fa biluje yoto ne des sa dal saa yu fa mbada seli ma rogo koko kaana fol bi kaal boko damay baaka frak ni ma non do do bol fo pour ni ma boobu ku lay tak we fay do tek kere nga bu sax bu tek du ma def fas naw tan du tek day ma ñal fas sal fen na fen sama ral fas day def FM si alkala koy jege ma fiya amul tere fi même alkala Antônio Gouveia é da grita. Duka P for real, nigga. Koo bañ di soo, non. Ba waxtu bon ak pekkee noon, boy. Lay fekk sama xol bés. Yéen a moom, yéen a moom. Foog succès wàcce ma coono. Coono, coono. Bëgguma doon ku ñàkk solo. solo solo moo waxul maa ni non non non non da bëgg a tekki duma e coow lu maa ci kaw bu la dëggaale yow may seet ci kaw ci kanam dégguma dégguma fole fole fole fole ah dégguma dégguma dégguma fii la fii la fii la ah kaw ci kanam dégguma fole fole fole ci ginnaaw jàppal cooli yeah bu la dëggaale waabi waabi waabi waabi waabi waabi eh bëgg naa leen bu boos te doo ko boos bu tàccuwul bu jaay sa pap te dee ko album te doo ko boos ca pap joli on l'adore mesdames messieurs Tëngéej am na rab wala amul rab Tëngéej am na rab Tëngéej am na rab wala amul rab Tëngéej am na rab bu leen dara metti maa jëli ji ñu rab daal seen bi indi ko Tëngéej yaa jëfa tee 70 gas jóge na seet bi jaar fële de 70 gas sam kase sañu bët dagg a gën life. I got my guys, you got it, guys. I'm super not alive. I'm super not. Gagne, voilà, gagne, machine nulle. Tout le monde. Eh, c'est une fois de l'eau. ñaar la mooy sa ñaar moo si kaw ma gis hey ay Paul Pogba Paul Pogba yaa ngi naa dégg yaa ngi naa dégg bu musul ne si seen na bàyyi jégalu damam soo bi yóbbu may dégg di géej gi ay yow mi nga xam ne man dégg dégg ko doon bu sa foto taag bu ma sa sama taag